sànq ba léegi on a fait presque trois heures de temps ci waxtaan ci culture urbaine ci musique bi ci ci démarche bi. liberté d'expression te amul benn dëkk au monde boo xam ne tey liberté d'expression dañ ko faral ba pare hip di fa di di fa di di fa di fa di fa évoluer demal Corée du Nord demal feneen ak feneen dëkk boo xam ne liberté d'expression dañ ko faral c'est-à-dire euh, day am problème mu euh, day am problème mu en fait euh, hip hop di ko développé déjà loolu mooy première euh, euh, contradiction bi deuxième contradiction bi tey bu fekkee yow da nga ñëw xam nga nii euh, da nga porte de voix nga da nga représenté ay Sénégalais après nga toog toog toog maanaam le président de la République maanaam problème sénégalais yi waxoo ko parce que Mbaye Alioune sama sama sama sama rek moom en fait dafa lu wax sama sama rek moo ci génn oui maa ngi dégg nag ñu naan xaw ma daf la bañal ay télé xaw ma dafa bañal ay télé nangul la affaire yooyu mais il a repris à s'exprimer en fait sur ces chaînes de télé ah parce que pas nekkul ne réew mi parce que li ñu amul lenn loo xam ne c'est-à-dire bu bu ñu leen muus quoi parce que tey boo xoolee ñoom ils sont pas naïfs ay président wax nañu lii nata nañ fii këram këram lañ ma wax Macky Sall amul lenn loo xam ne mos na kon fenn fu ay promesse après yow daf ko année conseil des ministres décentralisé yi ana leneen ak leneen ak leneen donc Macky Sall la période koo xam ne ay moom moo la dese koo xam ni da ngay ñëw naan ay waaw non c'est-à-dire euh, man euh, a ji promettre na ma lii promettre non voilà Macky Sall lépp lu fi nekk ba léegi attends c'est-à-dire qu'à un moment donné ils vont pas me dire qu'ils sont aussi naïfs que ça quoi donc problème bi xam nga mooy lan mooy que dem ñu ko lijjanti seen problème même Abdou Karim Gueye bi ñuy wax nii affaire yu laaxaale la rek parce que lu waroon wax waaye dañ ci doon waslu àq mais quatorze mois kan mooy waslu si ñoom si quatorze donc en fait man xam naa dama téye liñ lu yàgg parce que bon danga ubbi ku nekk war a dugg wax seen xalaat xam nga donc mënoon nañ fi wax développé fii ba suba mais xam nga damay wax tuuti mais ñeneen ñi yegg bi donc euh, loolu moo ci doon sama gis-gis quoi. yaa jaajëf mais respect respect frérot kontaan nañ trop ñu dugal keneen donc euh, dañuy dugal euh, Stéphane Kabou c'est un artiste c'est un animateur c'est un hip-hopeur bon il fait plein de choses dans dans les cultures urbaines. donc moom aussi bëggoon nañ ci am point de vue am mi ngi doon suivre euh, Stéphane ñu baale nga nuyoog Sénégalais yi nga wax na nga gisee débat bi sànq et tout ça point de vue. waaw waaw salaamaaleykum wala maa ngi lay nuyu bu baax a baax. di seetaan. bon suivre naa lépp ah suivre naa d'ailleurs j'étais en train d'écrire un article sur ça sax quoi def benn genre résumé. voilà dégg nañ lu taxaa wax mais euh, y a même pas de mais mais jàngat bi ma si am mooy depuis début bi comme man ni ma ko waxee sama article bu ma def barki démb c'est pas la première fois quand on parle de d'argent que les rapports ne s'entendent pas boo xoolee par exemple Covid 19 bi mu amee adduna bi yëpp jaxasoo lépp tasaaroo et tout ça mbëri am problème artistes yi am problème ñëpp am problème dañuy gis ne yi ñooy seul entité sax laa ko mën a wax boo xamante ni xaalis boole na leen ci affaire Covid 19 bi parce que amoon na aide et tout ça donc à chaque fois rappeurs yi ñooy am problème boobu noonu à chaque fois à chaque fois donc je pense aussi que euh, li gars yi wax dëgg la li il faut que ñu apprendre il faut qu'on apprenne à à écouter ce que les Sénégalais disent c'est très important tey dafa promoteur la. ce qu'il fait depuis le début c'est louable ñëpp nangu dañ ko ñëpp xam man mi personnellement il m'a fait jouer au maintenant à un moment donné il ne faut Euh, à sa poche quoi il faut penser aussi lu population bi di wax c'est vrai que un million par ci quarante millions par là neex na torop mais dañu nekk ci jamono boo xamante ni le contexte ne s'y prête pas du tout c'est ça le problème tey euh, xaalis muy commencé di ñu diviser muy commencé diviser artistes yi opinion yi ñii di jaar gauche ñii di jaar droite et nii lañ mës di il faut que def bloc di soutenirante quand je prends par exemple l'exemple le cas de de de Nit Doff son concert qui a été annulé pour je ne x raison tey ñun ñëpp dañu waroon def benn bloc pour soutenir loolu noonu audience au palais du Moussa weesu so a wees te lii nii yëpp après ñun amee ay problème des gens yi dañuy ñëw def lu ñuy def après dem seen yoon ah, ils s'en fichent complètement de nous ce qu'on pense ou pas tey li nga wax sànq ci live bi c'est très important quand le palais a reçu les rappeurs bi ñu paree ci saa si dañoo posté photo yi ils ont posté les photos ils ont mis sur seen story ils ont communication de malade qu'ils ont fait il faut pas que gars yi ba il faut pas que gars yi xeeb ko xaalis boobu noonu ñu joxe du dara si ñoom mais communication bu ñu def c'est une communication de malade il y a une marche il y a une manifestation qui doit être faite le 30 je pense 31 décembre am na ay événement yu ñu wax on attend le discours du chef de l'État instant yii dëkk bi c'est tellement tendu que tey doxantu booru palais sax c'est un problème doxantu booru palais côté César doon côté Café Dôme sax c'est un sacré problème waxatuma laaj dem président di la recevoir et dara. Euh, man je note une certaine arrogance si yenn rappeurs yi par exemple dire que man mun naa dem palais sama yoon nekk aussi et cetera tout le monde palais au palais ah y' a am na ñoo xam ne te te am solo ñun si suñu bopp rappeurs yi on exige des politiciens loo xam ne ñun si suñu bopp duñ ko respecté parce qu'on est anarchiste on est on genre euh, je fais que je veux kenn mënulu ma dara et cetera. Hmm. politiciens yi fi waxoon barki démb ñoom du ñu def cumul de bu ñu waxee nii lu leen neex ñun ñëpp ñëw dal mais da ko le le seul personnage boo xamante ni moom day jàpp ni moom mun na def lu ko neex c'est-à-dire mun na clash président après ñëwaat àndaat ak moom mais askan wi da ngeen di xaar askan wi xaar après ñu ñëwaat àndaat ak askan wi et tout il faut que gars xam sur quel pied danser donc instant yi c'est super problématique loolu noonu problème du sax ay un million et tout yow tu as parlé de taxe ak suñuy impôt et tout am na ñoo xam ne sax comprendre luñ ko noonu mais image bi la c'est-à-dire que palais bi image bi mu utiliser pour communiquer moo gaaw et solo tey rapport bi nga xamante ni demoon na tey barki démb palais le 30 suñ la gisaa tey marche franchement nit ñi dañu la demee qu'est-ce que tu fais là en fait. lan hmm. ngay bëgg marche lan nga bëgg wax. Hmm. parce que voilà voilà même bu fekkee dafa dafa ne euh, ñoom euh, moom événement moo ko yóbbu foofu mais contexte bi permettre war na leen permettre ñoom ñu wax par exemple euh, askan wi lu ñuy dund ñu rappeler ko président même bu fekkee xam na ko parce que moom il peut pas cautionner que Rifouné ñu Kaolack lii ak lii e fier quand il disait que rifu nee na président bi lii ak lii la ñuy dund mais pourquoi mu bëgg a yem foofu parce que loolu politique la pourquoi mu bëgg a yem foofu te yeggu ci troisième mandat mun na yegg ci troisième mandat mun na yegg ci yeneen ak yeneen soit jël lii soit mu bañ a jël lële soit mu ne man TRG show mu fa yóbbu Simon et tout ça ne parlait pas de Karim on s'en fout ne parlait pas de Kaolack ne parlait de rien du tout dans ce sens soit ñu on va parler que de terre chaud que de culture après ñu dem suñu yoon ñu jël wecc bi yoon mais il peut pas dire que non politique loolu yóbbuwuñu fa après mu ne non quand même il a il a dafa këf micro président bi euh, et ça on de ça et que il a parlé de Kaolack nee na ko diw maa ko fa jëlee ñu fier ci loolu loolu politique la aussi. Hmm. et loolu c' est pareil que Abdou Karim bi ñu jàpp c' pareil que François Mancabou bi décédé c' c'est un promoteur ce qu'il fait c'est louable mais il faut vraiment que ñu ñu ñu bàyyi xel ci loolu quoi voilà man loolu laa si amoon xalaat bu may le contexte ne s'y prête pas du tout. macha allah am na solo am na solo ma bro kontaan naa trop. respect respect pour lépp li ngay def pour le hip bu baax aussi et benn affaire benn affaire laa tenir wax avant may couper je dis juste aussi que. ñu ngi rafetlu aussi bu baax yow li ngay def parce que yàgg naa la ko wax yow élément déclencheur nga xam nga tey y a une révolution qui est en train de se faire de de petit à petit mais tey insuffisance alimentaire bi ak li am ci dëkk bi yëpp actuellement doyul en fait mais buñ ko xeeb il faut ñu xam ne lii am ni yëpp train benn traînée de poudre la en fait c'est mm. étincelle bi la ñu jotagul mais benn traînée de poudre la de le wala de penser comme ça que dëkk bi peut-être mun na tàkk ak affaire yooyu noonu loolu du suñu objectif ñun ñëpp mais c'est malheureux mais c'est comme ça benn train de poudre bu bëri moo am lenn nag mooy mun a am mooy benn étincelle ñëw laal benn train de poudre lépp am problème wala ndox bu sedd ñëw sottee ko ci maintenant d'un côté comme de l'autre nous tous on est engagés ñu ñu xool kan moo bëgg jàmm mu def jàmm ak kan moo bëgg ay mais ay day am forcément parce que yàq moo gën a gaaw ko donc en espérant qu'on n'en arrive pas à ce stade là quoi mais voilà na gars yi bàyyi xel euh, askan wi baax a baax. jaajëf respect respect Stéphane big up. jaajëf voilà jaajëf yee ñu ñëw jël kila ci waxtaan bi yee what's up kila. yow yee sant yàlla ñu ngi lay ziar. maa ngi lay ziar maa ngi ziar sànq jël nañ promoteur bi on a discuté et tout j' que yaa ngi ko doon déglu et tout ça lan moo ci sa point de vue euh, ci ci li nga xam ni moom mooy mooy fin bi quoi li nga xam ni dégg nañ ko sànq euh, promoteur bi wax ko après xaalis bi ci génn tout yow lan moo ci sa xalaat. non man je nga lépp wax nga si yokkaat rek day nekk trop de communication man Ousmane Kambou léegi li mu wax léegi nii wax na lépp quoi. je hmm. veux dire munoo xam nga man lu gën a bañ. il hmm. faut pas sàkkee ton live Sénégalais Sénégal dafa toll ci benn euh, benn euh, zone de turbulence bu grave boo xam ne ay bakkan ñu ngi wàdd ay nit ñi ngi tayle seen bakkan am ñoo xam ne buñ ñibbisi woon Sénégal tey suba ci kaso bi la ñu fanaan. Hmm. am na ay pères de famille yu ñuy ak seen doom am na ay gendarme yu ñuy réer donc bu kenn buruxlu ay affaire quoi je dire affaire monnaie yi ok appel promoteur mën na bëgg mu ni moo foog ma gis Macky Sall liggéey di say audience bëgg d'accord yooyu ci liggéey la bokk hmm. demal nga jël quoi après nga bàyyi Sénégal xam nga bul yàq hip hop bi relation bi amoon ak Sénégal yi quoi bul ko yàq bàyyi ton billet c'est ton droit certes grawul demal jël ko am demal ak sa directeur programme am nga benn programme da nga ko bëgg a yóbbu ci asamaan si ak ci ginnaaw ci déggu géej gi mosu fee am yow yaay la jur mais pour ça que rapport yóbbu leen ñu taaj leen foofu bu place bi nga je me mal pour les rapports parce que plus on en parle parce que ñu nga yéen a ngi wax un million dañuy xëy suñu ñëpp naan rapport yi dañoo jël xaalis dañ leen jox un million après day yàqaat seen der alors que c'est des artistes très engagés demuñu pour jaay seen ngor pour la plupart dañu demoon parce que naïvement dañ leen woon nii rek kaay leen président na que ne bu soxlaa na ministre de la culture xam na lim bëgg a taajal président sur la table. apporte les restes. jaar na ko ci promoteur taajal na ko ci table bi. léegi promoteur bi su gars yi nay fee ñii lay def jël rab gaal seen mu defal ko benn tournée boo xam ne euh, tournée kii lay doon tournée jël artistes yi ñuy liggéey ak Macky Sall. tu verras jamais des tournées yoo xamante ne nii Macky Sall moo ci dugal xaalisam artistes yi jël micro bi naan non au troisième mandat non au nangam sangam xam nga su les restes. waay waay waay day ko day. waaw tu vas toucher ton billet frérot yàgg na yëpp fee la ñu fekk yàgg nga dem palais. tuuti poog fii xëcc gars yi ñu ngi organisé demuñu palais ñu ngi koy jëmal joxe ci mbedd bi ak sa ak seen sponsor yow yaa ngi koy def c'est ton droit mais xoolal yemale ko ci yow en tant que sa structure mais bul yàq deru hip hop bul jël hip hop sàkketoo ko taaj ko ci table bi comme li nga ko waxee sànq on n'est pas besoin de jël gars yëpp yóbbu ñu taaj leen foofu bro. Hmm. soxla wuñ ko woon sérieusement ak fi jamono toll ak ni jamono lëndëmee Sénégal ci guuta la nekk gu ñu toll nii guddi gu euh, bët setagul la.

conseil bi dama rab ñibbi sa kër bu la kenn news di la wax nañ parce que très sensible ay Gaston yii xam nañ Gaston il tient un wax nit ñi di ko dégg donc mënul xëy suba ñu woo ko pare rek mu jubali pare parce que day nekk day man gis naa artiste boo ci veille bi mu ngi doon def benn système Macky Sall yëkkat leen baaraam fi euh, fi nga air te suba ko muy nuyu Macky Sall contradictoire donc donc le truc mooy tu l' as dit de le dire tu peux pas dire que ni euh, TRG yóbbu politique yóbbu wuñu fa et derrière nga bëgg a magnifier kii sax wax na fa politique donc dafa am sujet yoo bëgg ak yoo bëggul. Hmm. il faut pas prendre les Sénégalais man gis nga gis nga ni bala ngay gën a daanu mooy nga yaakaar yaa gën a muus ñëpp. Hmm. ñëw yu affaire bi danaa ñëw def ay ay ay ay ay ay ay thèse antithèse TRG dañ ko yóbbu mën na gën Sénégal fii mooy spectacle bu leen jommal amagu fi. Hmm. da nga ñëw def eh c'est bien mais il faut pas exagérer ñoom moom mbubboo Sénégalais yi dañ koy yóbbu fii douze régions yi kii Afrique kërëb kërëb nga foog ne loolu mën na mettre Sénégalais yi loolu say projet la tu es c'est bien pour le hip-hop galsen mhm. mais nag xam nga bul sàkketoo hip-hop galsen ba offrir ko Macky Sall si benn plateau hmm. donc l'erreur que les artistes ont fait c'est d'avoir accepté ça il ne devait pas accepter après nag bu ñu amalgame quoi daal ne euh, ay saaga leen quoi ay vendu lañu ay lii lañu non non non ils ont juste été utilisés ils ont été naïfs pour la plupart c'est des gens intègres donc lañu refusé jël artistes yi aussi euh, di tirer di tirer à volonté sur ñoom ils ont fait une erreur mais kenn su demu fa naan am nga droit def troisième mandat Macky dëkk bi neex non defuñu comme defuñu ko rek c'est à saluer mais liñ leen war a reprocher mooy ils ont été naïfs mu xëcc ne dakaay dem ak symbolique bi nekk ci nañ ak toute la récupération bi ci mën a am ils ont pas été très prudents hmm. donc pour man loolu rek la a reproché après ñu joxaat leen confiance bàyyi leen ñu continuer seen mission ñu bañ leen parce que bu ñu leen aussi il faut bi la affaiblir hmm. après man tout le temps mooy le promoteur bi nga xamante si ni moom moo jël hip hop gaar seen gaaw woowantu leen tak tak tak xëcc ñi xëcc ñoom gasoo tey ñëpp mu nangu woon dara ni waaye di ñëpp lay dem teg ci kanam Macky Sall Macky Sall photo ak ñoom utiliser ko donc le promoteur il a le droit d'être ambitieux il a le droit de poser mais na teg ci dans les règles de l'art ñi fii nit teg nañ fi façon bu nekk kenn fëggul palais fii fii fii frais wu frais wu concert xam nañ ko boo xam ne fay sa communication ak sa solo leneen la ci des lépp on n'a pas besoin de sa bon frère non plus Mm-hmm. foog ma gis Macky foog ma gis Macky tout le monde derrière histoire de récupération et de politique et de man mën naa nekk link bi dox ak yow ak rapport yi soo ma wóolu mën naa la jëlal gars yi di leen yóbbu Thiès di leen yóbbu fii après ça va faire ton histoire à toi Macky Sall et mm-hmm. il faut comme garçon bu ko sacrifier comme ça un promoteur qui va toucher son billet d'accord mais na ko dans les règles de l'art mm-hmm. yow déjà tu as eu les ministères tu tu as eu des sponsors ils t'ont mais su ci demee da nga yokkaat ci palais ba pare bëgg a sakkatoo hip hop le hip hop n'a rien demandé bu fekkoon dañoo a waxtaane les les on va passer par toi un privé da nga pour sa billet boobu sakkatoo hip hop bi naan dañ ñuy defal lii dañ ñuy defal laa wax nañ ko lii c'était une occasion si Macky Sall veut parler avec les hip hopeurs xam na naka la koy defee. Hmm. yow tu es un privé tu veux juste faire la promotion de TRG parle de TRG mais bu leen sakkatoo tout le mouvement les boys ils sont frustrés dañu xëy suba dégg na tel ay un million tel ay un million mu indiwaat yeneen yeneen yeneen confusion ci hip-hop bi yeneen problème lay indi parce que da doon ah kon kii la ñuy jox kàddu xam nga day indi yeneen confusion. waay waay tout à fait. Euh, yeah mais big up big up brother mi nice na nice macha allah quoi dañ bëggoon am sa point de vue rek sa gis-gis quoi. big up big up la famille et puis ñu doon li jot mais. jaajëf one love one love good night.